jóge fu nekk. jërëjëf Assane euh, Assane euh, xam nga imam imam imam puy euh, def na benn introduction bu am solo ci xarala yi. Mm-hmm. dañuy njëkk ne loolu ñu ñëpp bu ñu juddoo dañ koy dégg mooy dañ leen la force légale la violence légale. mooy état moo yor violence légale. légale boo nee ne état moo yor violence légale. mooy war na am violence illégale. xam nga. te légal bi sax dañ ko war a wax entre parenthèses la. ni lay wax boo xoolee dañ lay nekk c'est l'attaque yi état bi moo yore. monopole de le monopole de la violence. xam nga boo commencé ne ni état moo yore monopole de la violence rek kon accepté na nga violence am na. xam bu ñu par exemple c'est moom moo yore monopole de de de de du rétablissement de l'ordre de la sécurité. Mm-hmm. boobu c'est différent. Mm-hmm. mais da nga ne monopole de la violence donc da ngay boobu qu'il y a déjà confrontation par une force de violence légale et illégale mm-hmm. mais balaa ñuy dem ci assemblée nationale ci wàllum loi ci wàllum encadrement mm-hmm. lay njëkk mooy éducation mm éducation ci li muy wax éducation mooy sañ ci réew mooy yore askan xarala yi ñuy utiliser ñun whatsapp facebook Euh, Twitter yii yëpp mu existé moom lay français yi di utiliser. Mhm. moom lay chinois yi di utiliser. moom lay norvégien utiliser. Mhm. moom lay ñeneen ak ñeneen ak ñeneen di utiliser mais forme violence yi am ci dëkk yooyu. Mhm. day wuute. ak ñun ak ñun. pour lan parce que forme d'éducation bi ak forme d'encadrement bi boo demee Chine. munoo accéder ci Facebook munoo accéder ci yenn yi ñu ngi yore seen propre outil te dañ koy contrôler. Mm-hmm. am na heure boo xam ne TikTok bu jotee xale yi dañ leen di yóbbu ñoom ñëpp si affaire éducation loolu c'est un outil contrôlé. filtre voilà filtré. Euh, am na yenn dëkk yoo xam ne par exemple boo demee ñoom ci seen bureau ak fi ñuy liggéey munoo utiliser Facebook munoo utiliser Twitter munoo utiliser dañ la koy wax nga bind ko ci conditions yi la. Mm. pour lan mm. dañuy bañ. débordement am ci seen environnement de travail parce que xam nga lu tax lu lu lu lu am xam nga mën nañ ko encadrer ci loi mm-hmm. assemblée nationale mën na jël ay jumtukaay ne lii dañ koy encadrer mais li mu mën a encadrer mooy les outils de communication fan la koy jaarale ci ay ARTP mooy réguler mm-hmm. mais le contenu le contenu dafa am ñu koy produire soit mu nekk nit ñu gis nañ ko jamono ji avant contenu bi journaliste yi ñoo ko doon produire mm-hmm. ngay damay RTS nga am ay Walfajri nga am am yeneen nga am ay Sud FM ak yu continue boobu lañ tàmmoon mais jamono jii mujj ñëpp ay journalistes ay journalistes yi ñëpp dañuy produire da ngay gis koo xam ne day toog këram. créel boppam benn tour nga yaakaar ne am na dix mille personnes yu ko wër alors ko moom bu xëyee benn néegam la yor. monte na mu defal la nag li ñuy wax show la. lu journalisme. c'est du show parce que du la wax loo xam ne dafa dem wuti ko ci xam-xam. daf ko daf dafa woo. imam puy Fadel ñu jox ko quelque information sans ñu recouper ko. ba pare mu ñëw rek. waaw copier wax ko amul preuve amul dalil fu mu ko teg lu dul dafa am mu waxtaan mu loolu mu nekk nag coow alors que journaliste bi am na lu muy moytu. nga gis keneen koo xam ne mu ngi këram toog Cheikh Oumar neexu ko mu jël wax lu ko neex ci Cheikh Oumar Sy mu ngi toog bitim réew. Mm-hmm. loo ci ëpp dañu toog bitim réew sax. Mm-hmm. ne la a ngi tàkk. taal leen koñ bi taal leen pneu bi taal leen kii bi taal leen bëri kër keroog maa ngi dégg kenn di ne waa waa diaspora bi nelaw nañu Sénégal am na jàmm xam nga corrélation bi ñuy def entre waa diaspora bi nelaw nañu ak Sénégal am na jàmm mooy dañuy ne ni waa diaspora bi ñooy nekk di jël ci seen i TikTok ak seen i Facebook ak yi ñuy nekk di taal yi nu ñuy wax mm-hmm. di wax ne woy il faut ñu dem fii taal leen fii nëb luy alors que ñu koy wax bu ñu paree dañuy xëy huit heures dem liggéey wàccaat taalaat seen jumtukaay mm-hmm. mais violence bi du ñu mën a nee ne ñàkkul bon capitaine wax na moom ci force de police yow immédiatement laaj ko ko duy yi ñuy gis muy circuler temps yi mm. est-ce que la wala du réel man xaw ma ci dara wax fa dëgg yàlla mais est-ce que duy yooyu est-ce que réel la wala gis nañu ci ay image ay ñit ñoo xam ne dañuy jël ay tiré est-ce que li ñuy tiré balaa blanc la wala euh, lacrymogène la wala lan la loolu tamit il faut ñu xamal ko askan bi parce que bu ñu ko xam loolu askan bi yow mi yore force de violence légale bi mhm. bu ma la gisee ngay def loo xam ne mën na ma gaañ man ma dem jël benn force de violence illégale mhm. musuñu gis ci Sénégal ñun xeex nañ fi politique xeex nañ fi xeex forme xeex bu nekk mais musuñu gis Sénégal ay cocktail molotov mhm. musuñu gis ñuy jël di dem lakk ay jën kër jàmbur di romb di sànni kër jàmbur ay cocktail molotov pour kër jàmbur yi di di di di tàkk. loolu musul am. bu temps xeex yi méttoon na fi. ab Ablaye wadd jàmbaarloo na fekk Abdou Diouf wala ak ak Ablaye wadd ay jàmbaarloo yu metti mais force de l'ordre jamono yooyu ak jëmtuwaay yi amoon jamono jooju la ñu mënoon tontoo violence tey da ngay dégg ku nekk bitim réew. di la jàngal loo xam ne yow xamoo ko woon. pour nga mën ko utiliser contre les forces de l'ordre ak avec euh, <coughs> waaw jumtukaay yi moom. ak jumtukaay yeeg affaire yi donc. Euh, paramètres yi dañoo sauté dañu changé soit léegi état yi ñooy mën a protéger seen bopp protéger seen askan soit ñu xoolaat naka la ñu éduqué waate suñ doom yi par rapport ak outils yi man damay wax gis nga li mu ko wax ni mu waxee contenu yi di ñëw ci ñun boo fanaanee di xool parce que nit ku nekkee choix la man lu ma neex mooy man bu ma yeewoo di déglu alxuraan moom rek laay déglu kii bu ko neexee lu bu yeewoo moom fait divers rek lay déglu mhm. Mhm. kii bu ko neexee li muy partagé mooy lu metti rek loo am violent am na mhm. ñoo xam ne tant que partagé wuñu lu lu naqari duñu kontaan duñu am jàmm est di que dinañ partagé lu naqariwul sax <laughs> waaw xam nga loolu lu muy am psychologiquement mooy <laughs> capitaine day toog au début mu koy seetaan nii rek après day am réactivité parce que subconscient am da koy commencé di ko intégrer ba si yàgg nag yow mi ci sa bopp da ngay commencé sax di ko waxtaanee ba def ko benn fait réel di ko jëfee di ko jëfee ba dem nag yow nga mën a finalement da ngay violent par rapport ak yi ngay recevoir. Mhm. parce que gëm nga ne lii lii ñu lii du yoon. non mhm. man gis naa bañ mu yónnee waa ji ba mu ko kii kii dañ ko dóor noo kii diw non Macky jàpp na diw non Sonko yooyu après day indi ay tension ba fi nga dëkkal ak ñi nga dëkkal say frère say sœur ak ñëpp parce que ku nekk mu ngi am outil boo xam ne. yow boo ko boo boo ko utiliser wu avec intelligence dafa am benn effet bu muy am ci yow mhm. moo c'est important par rapport ak suñu suñu psychologie parce que boo yeewoo suba teel yow nga julli fajar premier message bi ngay jot bu nekkee message bu baax la day impacter sa journée premier message bi ngay jot bu nekkee dafa négatif day impacter sa journée moo tax heure yi boo koy xool dans les grandes yéen journalistes yi xam ngeen ko y a des horaires boo leen commencé wax rek dafa am lu muy jur ci ci ci askan wi ci journée boobu c'est vers les sept heures et demie huit bu may dem di liggéey di am li may déglu moom laa yóbboo yi sama liggéey ah non mais dégg nga li oustaz Adana wax tey huit heures ba mu ko waxee lii ak lii ak lii ak lii mm-hmm. feedback bi boobu dafay am mais vraiment buñ ko nëbbante mm-hmm. buñ ko laam-laamante la violence aujourd'hui au Sénégal est une réalité mm-hmm. c'est une réalité verbale c'est une réalité physique te loolu il foog ñu jóg ci te dem na ba laal këru diine yi parce que mm-hmm. amoon na ay jamono. am na loo xam ne munoo koo sañ a yëkkati ci kàddu. Mm-hmm. di ko teg ci ay kanamu ay kilifa. Mm-hmm. parce que damay fàttali wax na fi sànq Sidi Lamine Niass mi kan mooy wuy juram. ak lan la fi représenté waxuma ci Sénégal de mais Afrique. lan la fi représenté. boo demee Nigéria bi rek. da ngay teg ne ne moom nekkuñu fii si Sénégal. ndax li ñu am ci Nigéria amuñu ko fii. ak feneen ak feneen boo demee États-Unis kan mooy El Hadj Malick kan mooy El Thierno Seydou Nourou Tall kan mooy Cheikh Omar Foutiyou kan mooy kan mooy kan dafa am loo xam ne dañ ko tënk tabaxee ko dëkk bi mu war a nag ñun ñu war a mën a am wéeruwaay mm-hmm. bi gis nga waay yooyu boo ko bindee bëggee dindi subaab yooyu da lay gaañ ñëw ci sa bopp. Mm-hmm. est-ce que ñun dindiwuñu ko si. non dindiwuñ xam nga lu tax dindiwuñ ko. wala parce que ba tey nekkuñu ci yoonu dindi. yaa ngi ci yoonu waxtaanee ko. Mm-hmm. Euh, imaam mu ngi ci yoon di leeral nit ñi. ci lan lañ ci wax. capitaine mu ngi ciy waxtaan ñu ngi ciy waxtaan tant ñu ngi koy waxtaan di jéem a dellu si nit ñi ci seen ci seen ci ay raison moo gën mais boo ko noppi woon baa ko muy mën na jur leneen ak leneen mais il faut d'abord accepter la réalité qu'il y a une forme de violence boo xam ne tey que ce soit du pouvoir que ce soit de l'opposition que ce soit quel que soit alpha yenn saa yi wax ak nit ci mbedd sax wala oto mm-hmm. ci oto nga koy gën a oto moo gën a gaaw mayente rek keroog maa ngi koy wax mm-hmm. sama sama sama sama sama sama mooy dawal kenn ñëw rek mu dugg ma ne ko mais lu tax munu leen taxaw mm-hmm. may sa moroom mu jàll yooyu c'est des petits détails sama bopp sama bopp sama bopp wala pour rien du kenn laal la rek nga taxaw saaga mm-hmm. donc yooyu tamit ci suñu bopp dañu war a xool suñu est-ce que ñun tey mm. suñu système d'éducation bi du foofu mm. la commencé nag di changer te te benn kilifa euh, doguma la sax waaye benn kilifa euh, dafa ne yëf yi bu njëkk ba fana euh, daas fanaan la woon waaye léegi fanaanoo daas la. waa fanaanoo daas la parce que léegi léegi léegi bu ma la waxee da ngay fayu. Hmm. amuloo xolu muñ wala euh, forme bi ngay tontoo dafay dafay ñagas léegi tontu boo gis rek am na saaga. du ñu waxante sax ma tontu la nga wax ma ma tontu la déedéet dañ koy yóbbu ba nga xam ne ma lay tontu damay def exprès ma saagaale la. agressivement agressivement ma saagaale la man la déet mais damay wax ak yow nga ne ma noonu. waaw loolu te doo ko expliquer ci loo xam ne. normalement bu ñu ci waxee normal saaga xeju ci leneen xeju ci lu dul waxtaan moo tax il faut ñu xool suñu jumtuwaay il faut ñu encadrer ko fi may daanalee mooy gis nga par exemple États-Unis bëri na violence mais dafa amoon li ma doon remarqué loolu mooy am na ay rajo télé dañ leen di tere musique yi bu génnee mm-hmm. dañ koy censurer yenn parti mm-hmm. pour booy ànd ak say waajur mm-hmm. doo ko déglu pour yenn yi dañ koy censurer di ko censurer di ko censurer maa ngi ko doon wax assemblée nationale pourtant ministère de l'éducation de de de la communication ñëw na fa ma ne ko ñu ngi foowee loo xam ne mu ngi jur jëyee ci xale yi mu ne ma lan ma ne ko gis nga musique américaine yi waajur yu bëri dégguñu leen boo dégloo seen way lu ñaaw ak saaga rek la ñuy wax contenu bi daal xale yi xam nañ ko hmm. mais contenu bi parents yi xamuñu ko parce que ñoom jànguñu angale te pourtant xale yi di ànd ci oto yi ñu koy teg ñu koy déglu ñoom xam nañ ne ñu ngi saaga ñu ngi wax lu bon hmm. mais seen waajur yi nga xam ne ñu bëri jànguñu ko ci tubaab lu jàng wala jànguñu ko du tout hmm. ñoom du ñu mën a xam ne loolu am na impact si seen i doom jërëjëf jërëjëf honorable dinañ ñëwaat euh, gas loolu ndax euh, ñun sax euh, xaw ma la jarate na sax ñuy dem di làmmiñ wu ñaaw ak yooyu ndax dañ ko mokkal a mokkal mokkal léegi ba am na sax ay xeetu saaga yoo xam ne mu ngi mel ni autorisé nañ ko léegi da nga koy wax sax mu mel ne du saaga euh, foofu laay ñëwee ci euh, oustaz Fadel gi en tant que journaliste mm. oustaz Fadel euh, yow yàgg nga bind ci Afrique yàgg nga bind ci Moyen-Orient yàgg nga dund ci Sénégal xam seen comportement mm. nga yaakaar ne soppeeku bu gaaw boobu bu fekkente ne mën nañ ko tuddee noonu Sénégal jékki-jékki rek soppeeku ba ñuy laaj est-ce du population boo xam ne bu violente la te bu njëkk ba euh, débat boobu posé wul woon lu ko waral. Euh, jërëjëf Oustaz Assane man yaakaar naa mbokk yi wax nañ ko introduction bu imam Birame Pouy leeral na lu bëree bari ci cause yi euh, ki nga xamante ni mooy capitaine aussi wax dëgg yàlla indi na.